président de la république bi mu tàmbalee jël na tout de suite mesure yi nga xamné mo ñu may aussi ñu mëna euh manam contenir euh, l'épidémie euh, fi ñu koy waxé ba légui, d'ailleurs mesures euh ci lañu né. xam ngeen euh, couvre-feu ci lañu né ba état d'urgence ci lañu né. Euh mais aussi ñu euh parce que ñun en tant que conseil économique social et environnemental bu ñuy wax waxu Covid 19 dañuy xol aspect yooyu yépp xool aspect économique yi aspect social bi euh, bu ko defee it ñu mën a continuer euh, di gëstu ak di jox aussi ay conseil euh, président de la république d'abord crise sanitaire la boo xam ne bi ñu fàttali ko àddina yépp yépp yépp la laal kooku aussi nañ koy fàttali booy seet bi mu yegsee ci mois de mars bi premier cas ñu ngi ko gis xëy na ci mois de décembre ci réewu tugal yi ñoom it xëy na sax gisuñu woon gravité bi ci départ bi waaye tout de suite euh, yëf yi dal di am accélération Sénégal dal di jël matuwaay yi nga xam ne euh, moom la waroon a jël ma fàttali aussi ne depuis deux mois ñu ngi tëj frontière kon euh, li ñuy def yëpp ci suñu xam-xam lañ koy defee ci suñu doole lañ koy defee loolu it dafa am jàngat bu mu ñu war a jox boo xam ne bii mooy d'abord suñu agent de santé yi dañu leen di gërëm sant leen gën leen a ñaanal ndax vraiment ñoom ñoo nekkoon les soldats qui sont au front Donc, vraiment dañ leen yoreel gërëm yoreel leen sant euh, di leen encourager euh, mais surtout aussi di leen ñaanal loolu dafa am solo kon Sénégal nous na aussi ci question bi euh, président de la République ministère de la santé ak acteurs sanitaires vraiment jot nañu jël info maanaam taxawaay bi nga nous ne moom lañ doon xaar ci sénégalais aussi dañu di aussi gën encourager parce que comprendre nañu à situation exceptionnelle attitude exceptionnelle Euh, de plus en plus euh, def naa yéen ñu toog ñëpp ku ci ne yaa ngi yor sa masque comprendre nañ ne aussi war nañ am distanciation sociale bi euh, ba nga xam euh, vraiment ni ma ko waxee ñu ngi commencé vraiment am aussi attitude préventive loolu nag dañ ci continuer c'est très très très très très important ni ma ko waxee Covid 19 indiwul rek feebaru yaram faut aussi indi galancor économique parce que bu fekkee aussi da nga ne ci situation bo xamné da ngay gouverner ah foog nga bayyi xel aspect parce que amna ci suñu ay euh, concitoyens suñu ay mbokk yo xamné euh tout de suite deux mois mënuñoo tok té amuñu activité économique daf leen di laal motax président indi aussi le plan de résilience économique bo xamné da ci jappalé secteurs yi defe né mu ngi waxtaan waxtaan na ak secteur privé

Eh, di daani seen doole ñooñu aussi foog ñu fexe ba ñu mën a aar seen bopp seen santé waaye mën a am quelques activités moo tax les marchés ndax marché aussi euh, boo ko bëggee tëj ci lu yàgg ni ma ko waxee am na ñoo xam ne dencuñu ñaari fanu dépense am na ci ñoo xam ne bu ñu jaayee ci seen table loolu la ñuy jël dal di yóbbu kon loolu it aussi euh, il faut que ñu ci bàyyi xel marché yi def naa ne recommandation bi nga xam ne moom lañ ci jël te may ñaan aussi suñu mbokk yi suñu concitoyens yi ñu nangu ko mooy dem booy dem marché nga aar sa bopp kii jaay aussi aar boppam maanaam takk maskam voilà mayante distance euh, ba nga xam ne bii di nga mën a conduire sa activité économique am loo jàppale sa njaboot loo suturloo waaye aussi aar sa bopp loolu am na solo trop. benn jour bi nga xam ne dinañ ci tëj marché yi nag dafa am solo man su ma jàppoon sax ne dama jàpp sax ne loolu aussi après war naa continuer ndax marché war naa am bés boo xam ne dinañu ko raxas ba mu set bu ko defee ñu am li ñu naan les normes d'hygiène